الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني السلام عليكم ورحمة الله mbokk ñu dellu si waat ci deux mille quatre cent vingt tollu woon ci nag waajal xamle ngën ji bindeef muy sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam euh, du ku ñu réere sax bañ koy xamle du ku bañ ba koy siiwal comme ni ko sëriñ Abdou Khoudoss doon waxee ci maam Thierno rawatina nag sëriñam bii yaakaaram jii di sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye fàttali rek jullit bi ci dañoo toll jamono joo xam ni bu ñu nee ñu ngi seen weeru gàmmu ci biir aalamul islam bi ci biir Sénégal war nañoo waxtaan yenn tomb yi ak laaj yi jëm ki eh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na ñuy laaj nettali leen xesatul fiil muy ñey yi nga xam ni ñoo doon toj ci kaaba gi eh, ñu waral leen eh, ab nàmpalam ak yaayam juddu baak ak yu baree bari yooyu nag boo gisee mu arri xool bind ko muy siira ak taarix moo tax lu nii lu fekk ko fi ba gën a bëgg aleyhi salaatu salaam waaye gis nga buñ ko bindul woon euh, daanaka kenn kenn duutu am jenn yitte ji ci moom ba ci kawteef yi ko suñ bu doon defal yépp li nga ko bind rekk bàyyi ko fi ku ñëw fekk ko fi ci ngay xamee ni kon kii yàlla daf ko yónni woon ndax yim doon def te ñim jàkkaar loolu mënuñu ko te moom nit la comme ñoom ñoo bokk ci maam ak ñoom bokk deret mu yaroo ci seen biir waaye muy def lu ñu mënul loola mu doon wan ne kii kon yàllaa ko yónni kon am na buur boo xam ni moom kenn gisu ko waaye moom kat moo laa yónni Isa moo yónni woon musa moo yónni woon Ibrahima moo yónni woon Noox tey jii moo yónni Muhammad ku bëgg ak ku bañ loolu muy lu lu lu lu mat a bàyyi xel Abraha nag ci xew-xew jamono yi nga xam ni jàll na la bokk ñii dañu ni at mi mu nee day toj kaaba gi ci la Seydina Muhammad juddu am ñu ni déedéet diggante bi mat naa juróom fukki at ndax Euh, alayhi salaam moom mi ngi juddu cinq cent soixante deux wala ci ñu bari li ñu wax am ñu nit ci at moomu ci la Abraha ñëwoon ni day toj kaaba gi ndax moo nekkoon buurub Xabasa euh, moo nekkoon buurub Yaman léegi nag moom gis na dafa xëy tabax benn kanisa bu mag kanisa mooy église foofu ci fu ñu wax sanaan ñu koy wax xulays léegi nag kenn musul gis bu rafet noonu ci jamono ca lam ci lef décoration bag lépp waaw ci xeeti bant yaag përëm yaag lépp lu ca war dem rek bu def ko ba arab yëpp di waxtaane loolu am benn waay bu bokk ci ci ci ci ci ci ñoom mer bi mu déggee loolu mu mer ca lool waa jooju nag moom moo def li tax Abraham waa ji dafa génn ñëw xulays ca kanisa ba daal fay euh, dem ginnaaw kër guddi daal di ko fay eh, taqal fu ko bëgg a taqal yépp bi ñu waxee loolu Abraha nag mu mer lool daal di giñ nag ni dana dégager lii nga xam ne moom mooy eh, kaaba gi waaw moom dana ko fi jële ndax mu doon benn béréb bii rek ñu koy soow ci àdduna ak di ko siyaare si loolu nag moom lañ wax ni ba mu jëlee nag armeem ñu waran ay ñey ndax boobu xam naa bu doon jamono yi ay sar du combat yu mel noonu jamono ju ne am na lu nit ñi doon jëfandikoo ci jumtukaay yi ñu bëgg a def ca la jóge nag jëm màkka nag ngir ni day toj kaaba ga ba àgg ci maamu aleyhi salaatu wasalaam la ca xew-xew ca ba saabu lu mujj alag leen ci ay xeer ndax ba mu ñëwee bëgg ko toj eh, maamu yonent bi alayhi salaam ñi mm, ko mun ko ni ko man sama gëlëm yi nga jël laa soxla mun ko yow waxoo dara ci kaaba gi muy bëgg a toj ngay wax ay gëlëm mun ko kaaba gi daa am boroom bu koy aar man maay boroom boroom gëlëm yi man moom laa soxla waaye wax na dëgg de naa kooku aar na ko daa yi bu ko nit gisee war naa xam ne lii du nit lii yàllaa ko def yàlla moo ko def léegi nag gis nga ko dëgër bopp tax na ba moom mu alku ak ñi mu àndaloon ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñu alku loolu la alamtara di wax ni euh, di nett li ci saar woo muy alamtara kay fa faal rabbu ko moo tax euh, kalaasu sëñ euh, Abdoulaye Sawaare gi ak mbokk yooyu am na yu ñuy xam ci alamtara yoo xam ni Euh, dinañ ko jëfandikoo yu mat a moytu ci li tax tooñ baaxul waaw saar saar bokk na saar yi nga xam ni euh, dongo daal di am na ci xam waaw euh, kañ la lañ tàmbalee màggal juddu yonente alayhi wasalaam den ci ñëw ci abu saïd borom irbil nga xam ni ci moom lañ jëkk gisee mu taalif lu benn téere bu tudd tanwiiru fii mulukil bashari fii mul fii mawlidi bashiri nashir waaw boobu laa bëgg a wax a tanwiiru fii mawlidil bashiri nadir luy leeral ci juddu ki nga xam ni moom la yàlla yónne woon muy bëgle ci képp koo xam ni gëm nga yàlla topp ko waaye muy xuppi ci képp koo xam ni gëmoo yàlla toppoo ko ak lam ci ak yépp loolu nag Euh, ñi nga xam ni ñooy euh, dàq gàmm bëgg a wax ni kooku ci Égypte ba mu koy def nit àdduna yi buur yi dañ doon ñëw euh, indi seen fas yi yi ñu war takk ko ci yeew ko ci jumaa ji muy nafaraak la ñuy wax boo ko xoolee day mel ni dafa soree lool lool ak Abu Saïd ba muy tàmbali màggal lii ñuy wax nga xam ni état bu Misra ay jamono loolu nañ ko def boo xoolee ci taarix dañuy soree lool lool lool waaye ñoom foog ñu jël ko rek ngir ginaaw loolu am na ci taarix rek jël ko daan koy puus yóbbu ko ca Abu Saïd moomu xëy moom moo jëkk ci taarix ci ñetteelu siècle bi mu euh, taxawee lii nga xam ne mooy màggal juddu aleyhi kon denc ñëw ci nàmpal gi mbokk mi nee na bëgg na ko ci leeral ndax moom dafa dégg ñu ni alimatu Saadiya ko nàmpal waaye dafa dégg ñuy wax ñeneen o alayhi wax ni ki ko jëkk nàmpal ci jigéen ñi mooy Amina yaay ji moo ko am na keneen ku ñuy wax Suwayba al Aslami nekkan eh, jéebéer bu Abi Lahab bi nga xam ni Abu Lahab da ko goreel ci bam dawee ñëw ni ko Amina jur doom ju góor ah Abu Lahab daal di kontaan ba daal di godeel eh, ba boobu nee nañ moom it alayhi salaam mus na weenam waaw gis ko moom alayhi salaam ab juddoom dafa am ay fàttaliku yoo xam ne kenn kenn kenn dutu ko fàtte waaw ak ñeneen ak ku ñuy wax Ummu Ayman moom it eh, moom eh, nàmpal na ko xawlatu bintu munsir ki yëpp lu mu ko naabul gën cee siiw nag mooy benn jigéen bokk ci saadiya boo xam ni euh, mooy euh, xalimatu saadiya mooy ki ko gën a nàmpal xalimatu bintu abi zuway bu saadiya xam ne arab euh, mu lu tax mu du ko nàmpal lu yàgg te yaayam nekk fi arab dafa baaxoo woon bu ñu amee doom ñuy xool euh, ku ñu ko jox mu nàmpal ko ab nàmpalkat boo xam ne am na soow te dëkkul ci dëkku taax yi nga dëkk ca baadi yëba baadi yëba ñoom euh, yàlla day def nit bu fa juddoo sax daanaka du bokk ak ñi xëy mu ngi juddoo ci taax yi comportement melokaan ak gën a dégg làkku réew mi bu baax fa la ñuy gën a làkke kon loolu yàgg na fi loolu moo tax moom it euh, bi mu juddoo ñu ñu def ni ñëpp di def léegi nag jigéen ñi dëkk ci baadee bi dañuy ñëw ca taax ya ñoom it comme nii jigéen ñi dem di wut liggéey rek ñoom ñuy wut ku ñu nàmpal léegi nag bu ñëwee màkk euh, képp ku ñëw rek ñu euh, damaa ku ma nàmp ñu ne xale bu fi nekk de anamu ñu ne mu ngi nii de waaye jirim la nga daal dem jirim la mooy amul ku ko fayal lan ki amee bokkul ak bu dee ñeneen ñi seet ku ñëw rek alima nag wax nañ ni boobu moom day ndeysaan bi muy dem fàqir la lool dafa ñàkk mbaam mbaamam gën a yéex ci mbaam yi moo gën a na eh, ñàkk daal ci ñim àndaloon bi mu wëree ba sonn amul nag ndeysaan mu ni ñàkk pexe rek ci lu yàlla dogal pour mu war a dem jël jirim boobu ngir mu nàmpal ko gis nga yàlla li muy def ndekete moom moo jël ki nga xam ni mooy euh, euh, mooy ngën ji mbindéef rek su ko defee kon euh, la ca xew-xew ca ba mook boroom këram kii man yañ tàmbalee gis ci barkeeg seen dund bi gàtt bu amul woon soow tàmbalee am soow seenu dund soppeeku ba muy ñëw sax di ñibbi si mbaam mi gën a gaaw mbaam mi mu àndaloon ñu ne ko yow am na lu xew yow bi ñëw ñu lay seen ca ginnaaw tey sa mbaam mi jiitu ndekete ki yàlla yónni mu war a sawe jamono moom la jël ci sunu borom subhanahu wa denc ñëw bu Euh, bu baax a baax ak xew-xew yi ñu euh, xotti dënnam bi moom ak nañ ko xottee ba génn ci lañ ci génn nga gis yonent bi ni ko suñu borom bu waajale ni ko suñu borom waajale yëpp ba ni mel mu mel ni ba tax na euh, kon jotoon na dama ne waxtu wii nu daal di jéem a xam kan mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu ci kenn kenn bindul woon Euh, relâchement nag comme fekk nañ ñu bind ci kon liñ ci bind nañ koy waxtaane te ngalawaay buñ koy waxtaanee nu am jomi jéem a jéem ko nirul nirulu comme ni ko mag ñi defee woon waaye dañ koy bëgg lool bari ay sopp na bi fu ñu ko tudd nga àtte jox na sa alal rek waaye agul ci xol bi day mel ni euh, àdduna nga jiital bu dee lu simple sax doo ca feeñ waaye bu dee lu fës rek nga feeñ ca loolu nag du dara dara mbokk mi doon na laaj faatu yaayam muy eh, Aminata ndax eh, Aminata dafa doon koo xam ni bi muy gaañu yonent bi soxla na ko lool lool lool lool lool waaye wax na ni muy gaañu sayidina Muhammad la àndaloon euh, doon dem ci euh, xabru ay mbokkam ay maamam ci ab waa ba la ko dal dal ko muy lu doy waar mu teel a kon ndey lool te fekku fi bàyyam maam jël desaan Abdul Mutalib gis nga ko moom it ba fi jóge yitte woon ko lool muy amul usni muy atum jàqare mi yàlla da ko teel teg ay natt yoo xam ne yow jullit bi euh, dangay ngay ni li nga bëgg nga xam ne doo am dara lu la naqari sa dara du manqué loolu munta am kii yàlla def mu ñëw war a sooy jamono gën ñëpp natt yi ko yàlla teela jaare lu muy gën a gën a gën a gën a metti mooy wéeruwaay du ndey du baay du maam waaye gis nga ko amul ku ni moom moo la melal nii ci yar ku la jàngal li nga xam lépp lépp yàlla la ko defal ba nit ñi biñ lay tuddee ki gën a wóor ci ñoom suñ ñu ko bañ ndax dañoo gis ni yaa gën a wéer ci ñoom muy al amin kooku jamono am ko moos waaye jamono ñuñ lislaam du ñu exploité kooku nga xam ne moom la yàlla jiital mu indi luy soppi jamono ndax li fi jaaragun ci ay état amu ci benn état bu ci mel ni état islamique yi fi jaar nga xam ne dañoo réglé euh, seen solution dundin ba mu tegu ci yoon ñuy gouverner ay seekali seekal alam bi yëpp yëpp moom rek moo ko fi amagul ci yonent yëpp te yonent yëpp yàlla leen yónni waaye kon moom da caa gën a matale ak yonent ba tax mu bàyyi fi loo xam ne am na ñu ko fi fekkul waaye ci la ñu sukkandiku bay gouverner gouvernance boo xam ne euh, amul amul def ba ñu demee nag ba yëg seen bopp di euh, buur boo xam ne yaa jiite jullit ñi daanaka li ñuy wax buur buur maanaam moom ngay doon yow defa nga ni lépp mach moom macha allah yow da ngay tëdd rek ak ak ku la jige di noos seytaane nag daal di profité ci loolu nag daal di yee xelal ñi nga xam ni ñoom duñu ay jullit te ñoom it am na lu ñu leen fal fañ dëkk mu woon leen nag fu ñu mën a jaar ba daaneel lislaam ba bennoo gi lislaam am ñuy am benn njiit comme nii ko chrétien yi amee islam da ko doon am ba ci ay mille neuf cent vingt vingt nangam yooyu muy euh, dawla Ousmaniya gi nekkoon ca turc ñu profité jaare ko ci seen waa ji ñuy wax Moustapha Kamal Atatürk Atatürk am na ñu koy firee mooy mooy bàyyi bu waa turc ci seen langue yooyu kooku moo jëkk daal di euh, daaneel te kat nee na jullit la waaye bu ñu xoolee ay maamam ak ñi ko préparé yar ko muy chiif ngir tas xilaafa gi ba jekku leen mu daal di déclaré yu baree bare bari léegi jële ko ci lislaam am naa waxtu dab nañu rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sakartuhu li an xad li watani bi nafa ma